voilà ñu ngi ànd ak ki nga ñaatam ba madame Seck ñaatam salaamaaleykum. maaleykum maa leen nuyu. noo def noo def. Euh, maa ngi kontaan. daa mbégte. noo dundee gàmmu gi. waaw comme ni ko ñëpp dundee rek. première fois ma ñëw passé ko fii ak waa fondation Rasoul donc dama ko doon dégg rek euh, maa ngi woon ci waawoon ci tëju burdu bi di tëjee burdu bi ba pare ma ñëw Dakar ndax fekk si lii mais am na solo parce que borom guddi gi rek lañ fi woy xéewal yi bëri na macha allah artistes yi ñëpp ñëw nañu ñëpp a fi daje tey kon li ñuy ñox rek yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp. voilà mu def 570 euh, poèmes jagleel ko yoon ci biir loolu muy def si yow en jeune. waaw euh, man ba may dégg loo xamante ne également euh, dafa am solo parce que euh, tey ji am na ñoo xamante ne jànguñu seen jàng soriwul tey bu ko defee daf ñuy permettre ñu xam mooy kan donc Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam loo ko defal rek da nga koy gis lépp loo ko jox rek dina la ko delloo ba wis la ko donc dañ koy ñaanalal na ko yàlla defal jàmm fondation Rasoul dem ca kanam ndax gis naa ne bis at bu jot mu nekk yokkute bu dee ñëwuñu tamit ñu ngi gis ci réseaux sociaux yi ñu ngi fekkee également li nga xamante ne ñu ngi koy liggéey ci Sénégal kon yal leen yàlla fay. gisee gàmmu gi. gàmmu gi dafa am solo macha allah bi may ñëw aw ma fu ma jaar dafa fees dell te teel naa ñëw donc li ma ko waxee rek àdduna yëpp a ngi fi ñëpp a fi daje xéewal yi bëri nañu macha allah lépp luñ fi indi yàlla ko ful ci ñoom lu bëree bëree bëri ñun loolu lañ leen di ñaanal ndax ñun bëgguñu ko dul Seydina Mouhamed. amiin amiin amiin madame Seck. merci.